wa baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen site muslih tv point com seen mbokkam daara Alioune Cissé mooy am mbégte di del si di leen nuyu ta di leen ziyaara seen jotaay bi ñu tuddee majaalisul mooy jotaay la boo xam ne dafay jàngal jëm ci wàllu fiqh waaye mu ci doon ànd ak yéen ci téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu dawoon nag yéen ni jëlee nag yéen lu toll ak juróom-ñaari dars ci téere bi tey ñu war a ñëw ak yéen tey suñu juróom-ñetteelu dars biñ mujj borom téere mi ngi doon jàngalu jëm ci ki nga xam ne dafay jàpp juumte yi ko mën a gaar bu ko gaaree nan la ko war a defaree ak ban taxawaay ci war a am biñ fiy mujj borom téere bi loolu ñu doon jàngal tey mi ngi ñëw nag njàpp ku ne njàpp tamit danga xes xel na daj ne bis bis day ñëw wala jamono dina jox sa njàpp toj njàpp moom nag lan moo koy toj ak yan ñoo koy sabab borom téere bi tey loolu ñu bëgg a jàngal kon ma fi wax ne nawaaqidul wudu'i ahdaasun wa asbaabun ba kii ba jeex kon tey loolu ñu bëgg a jàng tey mu ne faslun li ab tàqale la mu ne nawaaqidul wudu'i yi yàq njàpp mu ne ahdaasun ay tojle la waaye wa asbaabun ak yi koy sabab am na yoo xam ne daal dafay yàq njàpp direct waa am na yoo xam ne daf koy yàq indirect yooyu nag la ñu borom téere bëgg a jàngal leeral ko ban ak ban la mu ne fal ahdaasu toj yi bi ci njëkk mu ne albawlu mooy tuur ndox képp ku jàpp ba pare tuur ndox a sa njàpp yàqu na waaye naka noonu wal xaayitu ak dem wanag mooy dem kabine dafay yàq njàpp waaye naka noonu war riixu ak ngelawal dafay yàq njàpp moom ngelawal wal masiyu mas yu tamit dafay yàq njàpp mas ndox la ndox la moo xam ne dafay génn ci góor ci bànneex bu ndaw ci bànneex bu ndaw amaan daan dañu ci kanam lan mooy mas yi moo koy tax a génn waaye naka noonu wal wadiyu ak wadiyu wadiyu tamit ndox la moo xam ne dafay génn ci góor ci mujjug tuur ndoxam ndox la moo xam ne mu weex lay doon mu tax ci mujjug tuur ndoxam lay génn rawat na nag nit ki bu xasee commencé jëm benn âge bi dana jafe lool mën a tuur ndox rek mu arrêté ci changé waaye wadi moom daal day génn ci ndox te yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi doon jàngale ne li gën a bari loo xam ne dañuy bëggal ci bàmmeel dafay bàyyi ko ci tuur ndox ndax ñàkk a ferlo ndax man ngaa tuur ndox rek jug dem yow góor nga dem ba ci yàgg yëg ne loolu mi ngi génn ci yow te bu xasee génn ci yow dootoo jaamul yàlla soxla ndax yaa ngi ànd ak sobe te ku ànd ak sobe lu mu jaamu du baax kon loolu ci bàyyi xel bu baax a baax buñ tuuree ndox ñu góor ñu dafa ab diir toog fa ab diir la la la génn gu mën a waaye rek yàkkamte mel ku fa yàkkamtee jógee ah loolu gënul boo defee la desoon sa naqabaaga yi di wàcc sa yére loolu nekkul loo xam ne lu gën a gën la te nekkul lu yiwee kon loolu tamit ñi ci bàyyi xel bu baax a baax rawat na nag boo xasee ba ah, âgé day jafe lool nga mën a am kàttanu tuur ndox léegi mu arrêté léegi day jafe lool kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon yooyu mi ngi noonu mooy ahdaas mooy toj yi mu ne wal asbaabu sabab yi yi nga xam ne dafay sabab a ah, njàpp lu yàqu annaw mu thaqil mooy nelaw yi dafay yàq njàppoo waaye lool bu ñu demee ci borom asmaa yi moom leer leeraloon na ko nelaw yi nga xam ne façon nelaw yi nga xam ne moo am ya ci yàq njàpp gi ci yàq njàpp boo demee mi ngi naan tawilun saqilun yanqudul wuddu nelaw yu gudd lool te diis sa njàpp yàqu na nelaw yu diis nag li ñu koy xamee mooy néeg bi nga tëdd ku fa dugg doo ko yëg ku fa génn doo ko yëg boobaa nelaw yooyu diis na bu guddee si jàpp yàqu na waaye naka noonu nelaw yi bu gàttee tamit te diis doonte 10 minutes la waaye néeg bi ko fa dugg doo ko yëg nelaw yi diis na boo jógee nga boo jógee demal nga jàpp jiwaat waaye bu dee nelaw yi nag gudd na lool waaye diisut ndax fi nga tëdd lu nga yëg wala ku dugg nga yëg ko boobaa diisut waaye nag boobaa boo jógee nag sopp ne dem jàpp jiwaat waaye nag bu dee nag yu gàtt la lool waaye diisut nag boobu boo jógee mën ngaa dem julli jéeg moom kon ñeenti façon nelaw yi moo am bu guddee lool te diis sa jàpp yàqu na bu gàttoo te diis sa njàpp yàqu na ah bu guddee te oyof sopp ne nga jàppaat waaye bu gàttee te oyof nag boo jógee mën ngaa dem ah, julli jéeg moom waaye nag noonu wal irmaawu xëm dafay yàq njàpp ku jàpp ba pare xëm boo ximile ko da ngay dem nga jàpp jiwaat waaye nag noonu wa màndi ku jàpp ba pare màndi amaana lu xaraam la wala lu dagan la li ma ay soow yi ne mel boo ci naan boo màndee tim ba pare da ngay dem nga jàpp jiwaat waaye nag noonu wal junuunu ah daanu rab saddam jinne ku jàpp ba pare crise daanu rab boo ximile ko tamit da ngay dem nga jàpp jiwaat waaye wal xubulatu ak fóon jàpp ba pare fóonante ba pare da ngay dem nga jàpp jiwaat waaye nekk noonu wala lamsul mar'ati ak laala jonjonteeg jigéen mooy laalanteeg jigéen seen ñaari yaram yi in qasada lazzata aw wajadaha boo ci jubloo bànneex te am ko ci sa njàpp yàqu na loolu tamit bu ñu delloo ci borom asmaa yi leer la nag moom tamit maanaam laal gi ngay laal soxna si jonjoo gi ngay jonjogoon sa ñaari yaram yi bu dee yàq ko ci jublu yaa si jublu yaa am ci bànneex boo ko ci amee sa njàpp yàqu na boo ko ci amut sa njàpp yàqu na waaye boo ko ci amee te jubluwoo ko ci sa njàpp yàqu na waaye boo ko ci amut jubluwoo ko ci laalante ngeen laalante boobaa sa njàpp yàqut kon daal loolu la mën a nekkee bu dee yaa ci jublu am ko ci sa njàpp yàqu na bu dee yaa ko ci jublu amoo ko ci sa njàpp yàqu na bu dee amoo ko ci jubloo ko ci nag boobaa moom sa njàpp yàqut kon mi ngi noonu moo tax mu ne in qasada lazata boo ci jubloo ba neex a wajadaha ta nga am ko ci waaye nekk noonu wa masu sàkkare ak laal sàkkara bi baatinil kaffi ci biiri tenq aw bi baatinil asaabiyan wala ci biiri baaraam góor bu jàppee ba pare laal sàkkara muy ay awraam li nga xam na dafay xonq ci biir loxo bi wala ci baaraam yi bu ci laalee ay awraam moom góor ginnaaw bu jàppoo ba pare a njàppam day yàqu moom góor li xonq ci biir loxo yi wala li xonq ci baaraam yi bu ko ci laalee rek ba pare day dem jàpp jiwaat kon mi ngi noonu mu ne waa man sàkk képp kuy sikki sàkk nag fil xadasi si toj la naa wala toj liwuma nga pare nga ngay toog ba si yàgg sikki sàkk ndax man sama jàpp yàq na wala yàqut mun a wajaba alayhi al wudu dama la jàpp jiwaat ñu ne ko ba faw mu ne déer mu ne illa an naa ndara bu dafa nekk nag mu waswisan fala shay alayhi ba mu des ki nga xam ne nag dafa am feebar moom feebaru sikk sàkk moom moom lu mu def danaan defuma ko bu jàppoo pare sax na est jàpp naa ki nga xam ne feebar la ci moom nag kooku boobaa moom doom jàpp jiwaat waaye ki nga xam ne nekkul feebar ci moom bu sikk sàkkaar rek dañ koy damal jàpp jiwaat waaye bu dul loolu rek moom ah, bu dee bu dul loolu rek moom day dem ah, jàpp jiwaat moom mi nga xam ne nekkul feebar ci moom waaye ki nekk feebar ci moom nag moom moom dañ ko koy jéggal ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na feebaru sikki sàkk moom amul benn saafara lu dul jëlale ndax dafa bokk ci yi nga xam ne Iblis da koy def nit ki ngir di ko loo ndax nga jàpp ba pare ci jamonoy sedde Iblis na la jàpp nga dem di jàpp jaat boo ko naree dëkkee rek bu yàggee mën ngaa yokkaat mën ngaa dem ba découragé moo tax ne feebaru sikki sàkk moom benn benn saafara la a mooy jëlale bu la koy defoo ne ko def naa mu ne waye di bu dafay war alayhi ci moom xatlu zakarihi minal masi ci bu gisee masi yu waaye wala yaxsilul du raxas nag al unsa yay ni ñaari way yoore yi maanaam moom góor bu gisee masi dafa war mu raxas ay awraam mais la nga xam ne dafay ànd ay awraam nag ci àndaaleeg moom nee na boobaa loolu jarul koy raxas ci masi yu lan mooy masi yu mu ne wal masi yu masi yu huwa moom masi yu maa un ndox la xaarijun buy génn ànd sëxwati suxra ci bànneex bu ndaw mas yi moom mu lay tuddal nag nee na mas yi ndox la moo xam ne ci bànneex bu ndaw ci lay génnee comme lan mu ne bi tafakkuri lu mel ne xelaat toog di xelaat jëm ci wàllu jigéen ak mel bu dee góor waaye aw nazar wala xool wala nga tëju sa néeg di seetaan sa wala sa téléphone sa ordinateur di seetaan lu bon daal ba mu génn ci yow loolu nee na mas yi ci noonu lay génnee di xool wala di ko xelaat ak yu ni nee na mas yi ci mel noonu lay génnee aw xayrihi wala yeneen yu du yooyu sax waaye nee moom bu dee masir li ci war mooy nga dem raxas say awra moo ci war boobaa moom du jar ah, sangu naa kon ñu ngi ñëw taxaw foofu jëm ci anam ak mbambastal mu ne nawaaqidul wudu yi yàq njàpp mu ne ahdaasun mooy tojle wa asbaabun ak yi koy sabab mu ne fal ahdaasu toj yi mu ne albawlu mooy tuur ndox waaye wal xaayitu ak dem wanag mooy dem tuma dem mooy dem cabinet waaye naka noonu war riixu ak ngelawal waaye naka noonu wal masiyu ak masiyu masi waxoon naa la léegi ne la mooy ndox la muy génn ci góor ci bànneex bu ndaw waaye wal wadiyu ak wadiyu wadiyu tamit waxoon naa ñu bëri ci góor ñi nag dañ koy gis naa ñàkk nekk général loo xam ñëpp a koy gis waaye ñu bëri ci góor ñi dañ koy gis ci mujjug tur na boo xasee jëm ci benn âge bi mu ne wal asbaabu nag am bi ci yàq njàpp ak ci dul yàq njàpp waaye naka noonu mu ne wal ixmaawu xëm dafa yàq njàpp waaye naka noonu wal sukru mandi dafa yàq njàpp waaye naka noonu wal junoonu daanu rab daanu ah, saddum jinne dafa yàq njàpp waaye naka noonu wal xublatu ak fóon jàpp ba pare fóonante dafa yàq njàpp waaye naka noonu wal lamsul marati ak jonjook jigéen dafay ah, yàq njàpp waxal naa la moom tamit ban ban moo ci yàq njàpp ban moo ci du yàq njàpp comme ni la ko leeralee sànq in qasdal lazata boo ci jubloo bànneex aw wajadaha te am ko ci waaye naka ne wa masu sakari ak laal sakara bi baatinil kaf fi ci biiri tenq aw bi baatinil asaabi wala ca biiri baaraam li xonk sa biir loxo bi daa wala sa biir baaraam yi boo ci laalee say awra ginnaaw boo jàpp ba pare ah, sa njàpp day yàqu ko ci kaw nga laal ko ci kaw yére wala ci kaw tuba yi ni mel mais nga laal ko te dara du bi nag la ñuy mu ne wa man sàkka képp ki sikki sàkka fil xadasi ci sama jàpp yàqu na wala yàquut mu ne wajaba alayhi wudu war na nga dem jàpp jiwaat ñu ne ko ba faw mu ne déer illaa an yakuna ndara bi dafa nekk mu waswisan koo xam ne dafa am feebaru moom sikki sàkka lu mu def xel mi naa ko defoo ko kooku nag mënu falaa say alay kooka moom dara waru ko ci mu ne waaye jibu dafay war alay ci moom xaslu zakarihi mu war ah, mu raxas sàkkaraam kullihi yëpp minal masi ci masi waaye nag wala yaxsul du raxas na al unsayayni ñaari way yoore yi naka noonu mu ne wal masi masi huwa moom maa un ndox la xaarijin bu aji génn inda sëxwati suxra ci bànneex bu ndaw li mel ni lan mu ne bi tafakkuri li mel ni xelaat waaye aw nazar nazarin wala xool aw xayri wala yu dut yooyu nee na daal ci yu mel noonu lay génnee mooy di seetaan lu bon wala toog di ko xalaat ba ndox ma génn ci yow li war la nee na boobaa nga dem raxas sa awra moo xam ne dafa am feebaru sikki mel ni tamit da ci duggaale xam ne amaana dafa am feebaru hémorroïde moom bu jàppee ba pare sax balaa julli mën naa nekk di ngelawal kooku nag tamit kooku lu mel noonu bu ko dalee moom tamit bu jàppoo ba pare ba fa muy jullee moom tamit ngelaw yooyu mu fiy def du yàq njàppam ki nga xam daa am feebaru hémorroïde fu mu toll day ngelawal feebar la ci moom kooku bu jàppoo ba pare war a julli ji diggante bopp ba ba muy julli ba pare fa ngelawal tamit kooku tamit du yàq njàppam loolu tamit ñu bàyyi waale ko ci xel ndax bëri ñoo xam ne da leen di dal waaye ndax boobu mën ngaa jàpp ba pare balaa ngaa yegg fa nga jullee ngelawalaat waaye boobaa mën ngaa dem julli ba pare boo jullee ba pare nag na li nga mënul daal mooy am naa njàpp am naa njàpp moom doo ko wax boo jullee tàkkusaan boo moom bu tisbaar jotee tàkkusaan jotee da nga dem jàpp jiwaat waaye diggante bi ngay jàppee fi ngay jullee moom ngelawal dafa yàq sa njàpp loolu lañ ci bëggoon a leeral xam naa kon ñu ngi ñëw doy la lool di wax ne ñu ngi jërëjëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moo nekkoon ak ñun ci ah, caméra bi naka noonu tamit di woy di soññ mbokk yi nga xam ne lañ jaaj mbokk yi ñu topp ci site bi ngi leen di jaajëfal bu baax topp gi ñu topp waaye naka noonu di tamit mbokk yi ñuy woy di abonné ci site bi di wax kon mi ngi noonu ñu ngi doy lool di wax ne lépp loo xam ne leer na ci dars bi ñu ngi koy sante yàlla waaye lépp loo xam ne dëng na ci ñu ngi koy jégalu borom bi di leen ko jégalu tax na in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh